internet yu sans limite TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax ziaramaat nañu mbégte lool àndaat ak yéen ginnaaw ba ñu jógee conseil constitutionnel xam ngeen ni nag tey moo nekkoon ñaareelu tour xool itam yan candidat ñooy jàll. gis nañu nag depuis ci subaak léegi gis nañu ñi ñenn ci ay candidat jàll nañu waaye nag benn bi nga xam ne sénégalais yi sax ñi ngi ko doon xaar moom mooy mbiru Bassirou Diomaye Faye moom itam jàll na ki ko wax du kenn ku dul son mandataire di Amadou Ba. dañuy wàcc ci tali bi laaj askan wi naka la ñu gisee euh, candidature Bassirou Diomaye fay ginnaaw ba ñu ko validé ci Sans Limites TV. ginnaaw ba Bassirou Diomaye fay jàllee ñu daal di koy validé ñu wàcc ci terrain bi laaj sénégalais yi rawatina patriotes yi naka la ñu gisee euh, euh, bi la mbir sang bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw ñu ngi lay ñu ngi lay delloo ziar naka kontaan nañ ci seen laaj bi. man léegi laa ko dégg ñu ne dégg ñu ne euh, Bassirou Diomaye jàll na waaye yàlla na jàll bu jàllee ñun ak kum mën a doon ñun ñun tey jii Sénégal que muy Ousmane wala ku Ousmane Sonko wax ne kii la rek man ak ñu mel ni man Ousmane Sonko rek la ñuy déglu bu jëlee man kenn Guinée Bissau sax ñu ne wooteel leen waa Guinée Bissau bi te Macky Sall jóg fii ñu wooteel ko ndax Ousmane Sonko. wóolu nañ ko wóolu boo xam ne bi ne yaakaar nañu kum ñu joxoñ kooku la waaw daf ñu ko won moom rek moo ñemee taxaw fii mu ne liggéey naa quinze ans Sénégal lekkul ma dërëmu Sénégal te kenn booba tey boobu ba mu ko waxee léegi kenn weddiwu ko koo xam ne ki ne boo jaaree ci ndox sax ñu la yaa ngi ñuy puseeral buñ la wëree ba wër la ci kaw asamaan si pour pour toroxal la xam nga ne kooku su lekkoon dërëmu Sénégal ba tey waxatuñ ko ba mu ko waxee ba tey kenn ñemewul génn ne Ousmane Sonko lekk na suñu dërëm ñun kooku la ñuy wër ku taxaw liggéeyal Sénégal 15 ans ne ku ma gisal fukki dërëm ka génne ko kenn mënu ko génne ba tey waxit ne su ma joteewoon Sénégal tey àllu Sénégal xam man tey su may topp Sonko topp ma ko pour place topp ko pour leneen dama yaakaar ne suñuy doom ñun ak alal bi nag ci réew mi képp ku ñëw fii ne su ma jotee Sénégal alal boobu naa ko delloo ci Sénégal suñu doom bi jot ci ñun ñu ngi lay déglu. Euh, je pense que c'est c'est c'est la logique des choses hein mais bizarrement on est dans un pays où les justice euh, est devenu le principe donc euh, lii ne ba amee sax bon personnellement c'est une satisfaction même si euh, la décision finale n'est pas encore donnée mais c'est une satisfaction bëgg la pour ñëpp parce que ñun ñëpp lañ ko doon xaar quoi ñëpp loolu loolu lañ doon xaar léegi l'attente aussi a été très longue te man dama yaakaar ne luy sax warul warul dem ba àgg foofu Pastef lu ñu dem ci ay parrainage campagne bu ñu ci def ñu ñëw ñu naan Bassirou Diomaye Faye il avait des doublons et tout ce qui pense que ça aussi c'est une erreur ou bien c'est une faute de la part du ñoo xam lan moo tax ñu recalqué jusqu'au jusqu'au deuxième jusqu'au deuxième tour ñoom ñoo xam. xam na Sénégalais yu bëri naam ñu ngi doon xaar ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye ci parrainage yi koo wax mu ne ndigal laay xaar ñu ñëw mu am doublon xaw na leen a jaaxal. jaaxal nañu parce que parce que quand ñun lu ñu lu ñu préparé ci ay parrainage ak lu ñu ci am c'est vrai que joxewuñu ay chiffres officiels mais ñun mun nañ ko xayma ay million de parrainage am nañ ko mun nañ ko am ci campagne bu ñu def nii. kon mënuñu ñëw ñu ne ñu Bassirou Diomaye dafa am ay doublons ñoom ñoo xam système bi nuñ koy nuñ koy nuñ koy nuñ koy joué quoi en parce que affaire bi système la quoi ñu mun nañ ko joué à leur gis te ñun luñ ci xam dara mais tout compte comme validé nañ ko ñun dañ ci sant yàlla rek encore une fois lu may lu may ñaan lu may ñaax yeneen patriote encore euh, renouvelons l'effort encore ñi xam ne affaire combat bi mu ngi door a commencé quoi en fait rien n'est ñun am nañ ñun projet la ñu am comme président Sonko lu mu koy wax rek ñun projet la ñu am c'est pas un projet individuel c'est pas on n'a pas on pour euh, des intérêts structures mais aussi c'est un projet projet bi yow mi bu ñu la ci ñu teg ko keneen ak keneen ak keneen mën na ko kii mën na ko mën na ko mën na def lu ci waar kon instant bi Bassirou Diomaye fay moom la ñuy teg comme suñu plan entre guillemets ba valide nañ ko léegi nañu préparé rek et aussi levée de camp levée levée de fonds muy ñëw dans quelques jours aussi ñun instant bi ñun pare nañu léegi lu ñuy ñaan rek ñoom nañuy bàyyi rek jarul ragal jarul dara état bi kay ñoom ñu yéen a moom lépp ñun nangul dañu leen ko léegi baa lañu ko suñu candidat rek ñu def élection bi ku mën sa ku mën sa morom duma. ah kontaan rek xamoon nañ day jàll waaw ah, amuñu woon stress. waaw xamoon nañ de bu jaaree yoon moom xamoon nañ day jàll waaw mais bu jaarul yoon moom xam nga état Sénégal nu mu mel fii ñëwee ba tere Ousmane Sonko kay mënoon nañ tere keneen tamit waaw mais ñun amoon nañ confiance day jàll quoi waaw. moom Ousmane Sonko président jàllul basiru jàll ba ñu téye Ousmane Sonko mu bañ a jàll euh, sa réaction bu njëkk lan la woon. biñ ko téye biñ ko bu ma ñu ne dañ ko téye jàllul ñu ne Sonko jàllul daanaka man. feebar naa ko ndax waaye tamit ma xalaat rek ne ak ku mu mën a doon rek foog am ku ñu Ousmane Sonko wax ni kii la te Ousmane Sonko man ñun lu ñu xam xam xam xam gars yi foog naa ne moo gën a xam donc ñun tey actuellement nii comme Basirou jàll na xam nga sax moom kenn xamul fu muy génn Basirou mën na jàll sax Ousmane sonk joxe ñu keneen ah parce que moom xam na li nekk ci réew mi mais que muy Basirou que muy ku mu mën a doon te lenn rek la Ousmane Sonko mën a wax sénégalais yi tey duñ ko def mooy wooteel leen Macky Sall am duñ ko wooteel lépp leen Ousmane Sonko lenn la mën a wax waa Sénégal waa Sénégal duñ ko def tey mooy lu bokk ci APR Ousmane sonk mënul wax bañ defal ko ba bu dul loolu bu jëlee waa bi Bissau sax ñëw ne sénégalais yi kii laa leen ko ñu dañuy topp kooku waaw. Ah. bu ñu fàttali ko itam ba léegi mi ngi ci kaso bi. Bassirou mu ngi ci kaso bi mais bu bu jàllee na toog ci kaso bi ñu gaañal ko réew mi dam jox ko ko. ñu teree Ousmane Sonko dafa la jaaxal daf la bett walla non bettu ma sax waaw parce que xam nañu nu dëkk bi di demee rek justice amu fi waaw mais ba léegi ñun ngi gëm na ni Ousmane Sonko dina nekk candidat waaw man gëm naa loolu ba léegi quoi. gëm-gëm boobu foo ko teg. waaw dañ ko teg nii rek yoon dina am incha allah waaw si yàlla lañ ko teg rek ñun waaw. dernière question le choix de Habib Sy. Euh, je pense que PASTEF euh, ou bien euh, la coalition Yewwi Askan Wi c'est euh, c'est c'est c'est une structure bien organisée lépp lu ñuy kii ñoom dañ koy waxtaane à la base dañ koy waxtaane au fond ñi xam quels soron les parce que on est ni ñu ci état groupe boo xam ne dafa méchant moo tax yi ñoom duñu bàyyi duñu bàyyi dara da ngay xool loo xamante yow mën nga ko teg rek pour en cas bu ñu la tegee benn piège rek ñu mën a génn si piège boobu nga am ay contre nu may bëri kon Habib Sy bu ñëwee tey Habib ci Yewwi Askan Wi je suppose ñi jël Yewwi eh, Askan Wi quoi Habib Sy dafa jënd dañu ko validé eh, docteur Cheikh Tidiane Dièye encore pareil mais Pastef man Pastef laa bokk bu ma lu may wax Pastef laa koy wax Pastef Bassirou Diomaye Faye dafa ci génn mais tout conseil ñoom ñëpp même combat bi même combat la bu jàllee Cheikh Tidiane Dièye bu jàll Bassirou Diomaye Faye bu jàll ñun dañ koy sant yàlla loolu am na. jàpp nga loolu régime bi dana leen ko may. loolu régime bi ah, xanaa ñu sàcc amul kenn tey ku mën a taxaw ci dëkk bi fii tey concours carré ba Pastef fii amut dañuy coow rek élection yi même buñ ko sàccee ba sàcc ko sax élection yi bu départoon di yoor yoor balaa midi mu jeex bu Bassirou Diomaye demee balaa midi mu jeex waaw le choix de Habib si senegal yi bu ñu ñu nga cay wax waaw le choix de Habib bon moom bon xam sénégalais ñun dañoo wóolootul kenn Habib gis nañu ko comme boobu ba tey euh, mu ngi ànd ak pro am nañu yaa ci moom yaakaar bu ñu Ousmane Sonko ne woon Habib Sy tamit ñu dem ci moom ah. ci patriote yi itam koy xaw a fustigé waaw nañ ko ci parce que xam nga dañu bëggoon lu bees hmm. lu bees lañu ñu bëggoon te Habib Sy bu dee lu bees la moom mag sax Macky Sall hmm. donc euh, jàpp jàpp ne ñu yoru lu bees mais amatuñu choix dañu amatul choix dañu yaakaar ne Ousmane Sonko comme ñu joxoñ rek moom la mais fooguma ni di dinañu joxoñ Habib Sy hmm. waaw parce que euh, euh, Cheikh Cheikh Tidiane Dieye xale la jege na pro Déthié Fall xale la jege na pro Bassirou Diomaye ñii ku ci dem rek baax na waaw ñi ñu jàpp nañ ñi ñoo ñooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko mooy mooy ñooñu waaw. dégg naa yéen a ngi laaj euh, yéen a ngi waajal tamit li nga xam ne mooy seen levée de fonds. waaw ah, waaw ñu ñoon ñun ñu ngi ci lépp ñu ngi ñu ngi waajal lépp lépp loo. yéen daal bu ñu leen carré fii rek ngeen génn fa ca des. ba wax 2016 euh, ba tey xaw ma ba tey ataa ni mu baree doole ni mu amee ay moyens ni mu njuuj njaaje ñu mu tappale boo toppee benn nit mënuloo ko sànq ba tey loxo loxo yàlla jógu ci ñu dañoo ànd ak yàlla wóolu Ousmane Sonko loolu rek la dañu ànd ak yàlla wóolu Ousmane Sonko waaw. ban message ngay wax itam patriote yi. patriote yi mooy ku ci jëliwul sa carte nga jëli sa carte te te déglu rek nag bañ a bañ a maanaam patriote yi message bi ma leen di mooy bu ñu mës a découragé bu ñu mës a Ousmane Sonko dina dem ak du dem ak bu ñu mës a découragé telle élection waa patrie waa passé bokkul bu ñu mës a découragé ci Ousmane fii ba 2035 ci ba 2050 bu ñu mës a découragé ci Ousmane Sonko xanaa loolu kay jeex na ñun def ñun duñu mës a découragé duñu mës a découragé duñu mës a koy ñaanal ñu koy jàppale yore suñu carte bu xam nga moom juum dañu yaakaar ne xale yi xale yi ñoo ñoo boo joxuñu xale yi seen carte ñu yaakaar ne Sonko mag ñi ñoo koy fal waaw ñoom dañu yaakaar ne xale yi ñu nanguwuñu jox xale yi seen carte yi xale yi nañ dañ téye carte yi mag yi ñooy fal Ousmane Sonko parce que man ak képp ku ma jege xam nga lan lan moo sama liggéey ku ma jege maa ngi lay jéem xamal ni kuñ fi koo fi mën a wooteel tey toroxtaange bi ba illaa yow mii de doo ci jógee waaw man gisuñu dara budul Ousmane Sonko wala ku ñu Ousmane Sonko wax. alors Basirou jàll na waaye ba léegi mi ci kaso bi. waaw mais loolu tere loolu yàgg nañ ko gis gis nañ Nelson Mandela si kaso la jógee nekk président waaw kon ba léegi mënul wees mënul ñàkk am tamit waaw. bëgg naa xam lan moo tax nga choisir Ousmane Sonko. politique am rek projet bi waaw buy demal réew mi si kanam rek demal Afrique si kanam waaw gis si suñu bopp lu ñu bokk moom ko ñun ñëpp waaw loolu la rek loolu moo tax ñu adhéré si Pastef quoi. waaw dañuy xam ne ni bu ko yoree réew mi dina dem si yoon waa waaw loolu la ñu gëm. yàgg Pastef ba kañ. à vie waaw à moom mu dem mu ñàkk dem à vie. dernière question le choix de Habib Sy. Euh, je pense que Pastef euh, ou bien euh, la coalition Yewwi Askan Wi c'est c'est c'est c'est c'est une structure bien organisée lépp lu ñuy kii rek ñoom dañ koy waxtaanee à la base dañ koy waxtaanee au fond ñi xam. quels seront les parce que on est dans ci état groupe boo xam ne dafa méchant moo tax yi ñoom du ñu bàyyi du ñu bàyyi dara da ngay xool loo xamante yow mën nga ko teg rek pour en cas bu ñu la tegee benn rek nga mën a génn si piège boobu nga am ay contre nu may bëri kon Habib Sy bu ñu ñëwee ah, tey Habib Sy ci Yewwi Askan Wi je pense ñu jël Yewwi Askan Wi quoi Habib Sy dafa génn dañu ko validé euh, docteur Cheikh Tidiane Dièye encore pareil mais Pastef man Pastef laa bokk bu ma amee lu may wax laa koy wax Pastef Bassirou Diomaye Faye daf ñëpp même combat bi même combat la ñu mënee donc Habib Sy bu jàllee Cheikh Tidiane Dièye bu jàll Bassirou Diomaye Faye bu jàll ñun dañ koy sant yàlla quoi ok merci